man maa ngi tudd Ngalgu Diop dëkk Kayar eh, dëkk fi nag ci jàmm ak salaam quoi vraiment duggoon ci gaal yi demoon Espagne def 8 jours ci géej def naa fa aussi 40 jours muy sama durée légale après la Ablaye Wade comme noonu moo defoon laaj gars yi ñu jox ko xaalis mu indiwaat nu ci ñooñu laa bokkoon quoi. expérience su gaal gi moom c'est amul amul sedd moom c'est tellement difficile que. moom dès que jóg nga pour da ngay dem Espagne rek xamal ne yaa ngi ci ay problème parce que ñun ñu ngi fi jóge woon le vingt neuf septembre deux mille sept ans kon def nañ huit jours pour arriver foofu Tenerife à le cinq septembre deux mille sept mais dama laa wax rek ne la lañ fi jóge woon mais li ci diggante bi moom xanaa jéem a ut loo ci expliquer rek mais mënoo ko expliquer parce que loolu moom da nga koy dund rek mais du la mën a expliquer nii pour nga comprendre. dinaay dégg ñu naan quartier yi kenn mën la koy expliquer te demoo fa mais mooy affaire bii rek waaw mooy affaire bii mënoo cee dem mënul la ko ex mënoo koo xam te te te jaaroo ci daal parce que man dem naa ba gis yoo xam ne ci géej ku mënoon dina dal nit non du ma ko mën a gëm c'est vrai ku mandi wul deful dara drogué wul wul wenn xeetu sinébar boo koy tàggaleeg saga di def action yoo xamante ne ni man damaa dem ba xam ni lii ku ma ne woon dina mën a dal du ma ko gëm te tukki ba moo waral parce que xam naa nit ñi dañu perdre connaissance mais man xam naa ne gaal gi man nekkoon ñëpp dëkkaar am nañu dëkkoon ngaay am nañu dëkkoon Dakar am nañu dëkkoon euh, booru Tambacounda mais vraiment yàlla dimbali ma na dimbali ni ma daal ba jàmbaar laa ci parce que ñu bari maa leen doon jàppale ci gaal googu quoi man mii en tant que man maa doon jàppale ñu bari ci gaal gi mais boo gisee kenn koo xam mu ngi wax waxi dugg ci gaal yooyu loo mën a wax ak moom ba mu ko def da nga ko wax ak moom quoi parce que bu ci demee dina xam ne li mu dem nii xamu ko waaw li tax xamu ko mooy man gis naa ñoo xamante ne ci géej toog nanu ba yàgg di waxtaan nga gis kenn ku daw mel na ku jaar ci tali yaayam lay yaayam lay gis moo koy indil ndëkki loolu xam nga ni ay du du du du gis naa koo xam ni dafa jekki-jekki romb ma ni jël benn paaka daw song gars pour gaañ parce que nee dafa gis ay liir yu ne ci gaal gi te il faut mu def li noonu gis naa koo xamante ni dañuy daw ba yàgg mu ñëw ba ca man ni ma grand ma ko ne ah, man dama gént bi sama yaay taxaw fii ni bu bu subaa naa xëy sóobu ci géej bon ba ma sóoboo ci géej ci ay loxam laay laay laay laay mu yóbbu ma këram ma ne gars leen ma kii ñu yeew ko teg ko noonu plusieurs gosses yoo xamante am na suma beneen booy boo xam ñoo bokk dëkk keer mais moom dafa xëy ni ma bitig bële fa laa bëgg a dem parce que damay jëndi lu ma ndekkee ma ne gars yi leen ko man xam naa ne avant may teer ci gaal gi ma ne kon man sama ndigali bopp rek yeew nañ ci 17 personnes yoo xamante ne kuñ ci yeewuloon mën ngaa dem géej wala nga rey sa bopp wala nga rey ñeneen ñi quoi man loolu xaw ma surmenage laa ko mën a tudde xaw ma perte de connaissance laa ko mën a tudde xaw lan la mais foofu daal laa ko mos a gisee te xam naa ne bu ma ko gisaatee dama demaat foofu quoi loolu daal mën naa kaa wax ci ci ci côté boobu gars yi jëlee gaal yi di dem bi ñuy dem aussi suñu gaal man maa yoroon GPS bi GPS bi nga xamante ne moo yoroon euh, cap bi bi ñuy lax muy le 1802 numéro bi nga xam moo lay teer Tenerife direct ca ca ca ca Kéba man maa yoroon appareil boobu parce que vraiment bi ñu dawee deux jours le commandant bi xam ni capitaine bi xam ni lii moom peut-être man dina am lu ma ci mën a assurer quoi. ci la ma oowee ma ñëw mu jox ma benn cartographe ni ma léegi won ma Maroc fan la nekk ma won ko Dakhla mun ma Crochel ma Crochel mun ma Saint-Louis ma won ko Saint-Louis mun ma Crochel ma Crochel mu ni ma Maroc ma ma ma wan mu ni ma Tenerife ma won ko Tenerife mun ma Crochel après mu jël benn GPS rek la ko bu 1802 boobu ni ma moom la gars yi daw bu nu wàcc 21 bu nu yéeg parce que bu fekkente ni dañoo yéeg 19 20 21 foofu hélice bi mën nay joow mais du jàpp dara parce que courant marin ñoo bari doole quoi. il faut nga wàccat ba 1802 pour am sa cap normal nga xam boo dawee ci yoon woowu normal 1802 da ngay dem ba teer Tenerife amul feneen fooy teer loolu aussi dund naa ko ci biir gaal boobu gis naa aussi ci biir gaal gi ñoo xamante ne dañ doon yuuxu guddi dañuy gis ay nag leen di dax gis naa koo xamante ne ci bopp gaal gi la jógee di daw ba ba ci genn bi di yuuxu yuuxu yoo xam ne dama ne mujj ni gars yi yeewu leen ko ñu yeew ko waaw yooyu expérience daal dund naa ci yoon boobu ba tax na ku gis nga fay dem man li ma lay wax mooy bul fa dem demoon naa fa mais ce n'est amul jàmm quoi loolu.